asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi leen di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ndax kii mooy édition bi nga xam ni e, mën naa ni mooy quatrième édition bi nga xamante ni El Hadj Gor Mack Ndiaye nekk na à la tête euh, du quartier ba noppi e, yëkkati gestion armeelu Jaxaaw yi teg ko sama loxo ci accordu population de Jaxaaw présentement y a Jacques Gaye mooy secrétaire général délégué de quartier bi lépp loo xam ni day am ci kàrt bi Jacques Gaye mii ci boppam mën naa ne lu ci bari moo koy coordonné kii El Hadj Malick Boy délégué moom it a Jaxaaw suuf di président wu ñi nga xam ni ñooy point focaux yi. di liggéeykat bu baax a baax di fab alalam sax di ko investir ci opération yi deme nii moom ak colonel Dany Boye seen dara nëbbuñu ko waaj a xaw lépp lu am ñu koy dimbale waaj a xaw particulièrement opération yu mel nii su amee moom daf ci dem ba jeex imam Pape Mbaye nag moom dafa naa ni ñun ñii lu ñu wax wax ñoom ñu jiitu ci liggéeyu armeel yi à l'époque dañ fi daan jaar rek def fi li ñu def dem mais ki nga xam ne mooy initiateur yu travaux yi ngay gis tey jii ba tey jii édition bii nga xam ni waaw mooy quatrième édition boo xam ne def nañ ko fii te édition bi ñu bu ko tuddee le camarade colonel Birame Dieng le camarade colonel Birame Dieng bi décédé récemment toujours dafa daan ñëw fii di yëkkati ay dërëmam ah ak ay ndimbalam di dimbali wàllu ñuy liggéey ci armeel yi ak di dimbali gardien armeel yi. donc le colonel Birame Dieng tey jii édition bi moom lañ ko alloué di ko ñaanal yàlla ndax mos seetaan waxtu wi daan na ko fekk mu ñëw fii di ñu jàppale ci liggéey bi yàlla ko yàlla yërëm kii nag di koo xam ni mën naa ni reportage boo gis da ko ji fekk ndax moom wax ma la moom rek waaye famille am sax ñu ngi fi toute la famille Dembélé est la c'est un adjoint maire un jeune du quartier qui fait de son mieux possible pour la zone nord moom xamewul Jaxaaw la xamewul Medina Fall la xamul fenn dans la zone nord il fait un travail très important te ñun mag ñi nga xam ñoo nekk ci quartier bi ñu koy approuver te di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom kële nag yaay gox la mu ndey gox kii mooy aw béy aw béy fu góor ñi nekk ma nga fa aw béy amul lenn loo xam ni moom la ko gën a ëppalee ma nga fa ay doomam ña nga fa borom këram sax mi ngi fi donc aw bey ñun de ñu gërëm man nag wax dëgg yàlla man maay koordinateer bi nga xam ni euh, bi nga xamante ni euh, euh, assemblée générale am na ñu yëkkati ay cër jox ma ko ci armeel yi ndax man laaj ma woon cëru kenn laaj moo woon jiite laaj ma woon nekk président laaj ma woon dara waaye il s'est trouvé dafa amoon ay travaux yoo xam dama doon woo samay mbokk samay sœur ah. ku mel ajaa am Amsatou Fall ak ñeneen ak ñeneen ñu leen jàppale leen ma ci armeelu jaxaaw yi ndax buntu yaag yëpp yàqu na moom mu fab ay moyens di ma jàppale ci armeelu jaxaaw yi mooy yëgal ko alaaj góor mag Ndiaye yëgal ko délégué de quartier yëgal ko ki nga xam ne mooy imam des imam yëgal ko le maire Dembale mu koy ñaanal yàlla te Adja Amsatou Fall moomu euh, ndimbal tax def ma koy defal di ko defal gardien bi nga xam moo nekk ci bunt bi donc ñoom koy gërëm. ñu ngi koy gërëm di gërëm famille am di ko ñaan yàlla léegi nag tey jii monsieur le maire Diakhaté en personne dafa ni dafay ñëw pour une première fois ñu gis maire boo xam ni dafa falu en un mois mu ni salaamaaleykum dama ñëw seet si waa Jaxaaw dama ñëw jàppale si waa seet si leen masawu leen ci travaux yi nga xam moom la ñuy def ci armeel yi chaque année parce que armeel yi situation géographique rek beneen affaire la mais il s'est trouvé armeel yi dafa bokk ci base base aérienne ku ni base aérienne xam ni base aérienne àll la camp militaire la mais àll la àll boobu nag ci boppam moo répercuté ci biir armeel yi ndax canal bi rek mooy seen moo leen séparé loolu moo tax lépp loo xam ne wat watun la mooy maanaam. picc wala leneen loo xam ni dafay daaneel euh, reen di daaneel euh, gerbe di daaneel lu mu mënta doon daf koy daaneel euh, ci biir armeel yi ba nga xam ne bàmmeel yi ci boppam dañuy dem ba lépp lu ci nekkoon lépp lu ci war dafay sax lépp lu fa war dafay sax armeel yi année bu nekk dañ koy bay di ko bayaat dañ koy bay di ko bayaat mais nag ñu ngi gërëm le préfet le préfet big woon ni ma la maire sera moom dina envoyé waa Sonaged waa UCG waa cadre de vie ñu ngi fii ñoom ñëpp indi nañ seen euh, seen seen seen personnel te ñun kontaan nañ ci lool le personnel de la zone nord est déjà là reeru war ko taxaw xamanteeguñu waaye dina ko yëgal ni fii ñun jaxaw benn bopp lañu caali ak jaxaw benn la jaxaw caali ko dégg xam ne jaxaw moo jur caali kon monsieur le maire nga ak seen jàmm ak salaam ñu gërëm aussi eh, adjoint yi nga xam ñoo fu nekk te dugal seen loxo ci opération bi di gërëm monsieur Seck directeur de la de la télé RTT RTT moom fu ñu dem mu fekk ñu fa RTT vraiment doon télé boo xam ne monsieur le maire. jar naa jàppale doon na télé boo xam ni su ma sañoon fépp fu meeru Thiès dem fépp fu préfet gouverneur u Thiès dem su ma sañoon yóbbu RTT parce qu'il fait bon reportage te saa subvention des télé amee dama bëgg ñu leen di boole ci subvention yi di leen ci jàppale particulièrement le directeur donc comme vous voyez ils sont en pleine activité ñu ngi nii di liggéey liggéey bu am solo te ñëpp xam ne ñu ngi liggéey. Ah, wax dëgg yàlla ah les jeunes de Thiès de Diakha particulièrement de Thiali ñoom ñëpp dañoo takku dañoo takku nekk ci liggéey bi wax dëgg yàlla ci suba ci suba ku fi jaaroon di nga xam ni ci suba ku fi jaaroon di nga xam ni waa Diakha waa Thiali ak riverains ñu ngi liggéey liggéey bi ndax fii yëpp dafa feesoon dell ak ay ñax ak ay garab yoo xam dañoo sax ci kaw bàmmeel bi waaye waa cadre de vie waa Sonaget waa UCG ak encadrement bi nga xam ne dafa bokk ci équipe bu armeel yi mooy ñi nga xam ne ñoo yore accueil bi ñii ñoo yore accueil bi ak ndimbal yi nga xam ni mën mën naa ni ndimbal yi nga xam ne moom la population bi indi. li ci ëpp nag ci population bi indi ay ndox la li ci ëpp nag ci population bi ay ndox la ak mbiskit ay ndox la ak mbiskit léegi alaaji góor man njaay indi na fii ay ndimbal yoo xam ni ndimbalu point focaux yi la moom maanaam ñun ñii ñun ñii la fi indi suñu ndimbal en matériel particulièrement ay râteau ak ay pelle ak ay brouette ah, yoo xam ni le colonel Dani Boy moo ko joxe le colonel Dany Boye moo jël matériel bu mat sëkk def ko ci oto indi ko kër Alaaji Góor Man Njaay ñu réceptionné ko kii nga xam ne moo nekk ci bunt bi kii nekk ci bunt bi kii mooy góor gi Demba Mbóoj góor gi Demba Mbóoj nii ba mu njëkkee ñëw dañ ma booleek moom mu fekk fii ci armée yi en pleine réunion de conseil de quartier en pleine réunion de cadres du quartier man leen kii nañ ko jël jox ko armée yi ndax fii la toog di ñaan di ñaanal ñooñu fu mu toll ñaari fan ñett mu wàcc fi kaamil Alxuraan fu mu gis bàmmeel bu tas wala bàmmeel bu yàqu góor gi dem Demba Mbodj fop moyen tibb suufam ñoo defar ko kon dem Demba Mbodj ñun de kontaan nañ ci yow tant ñu ngi fi bu soobee yàlla ak yonent bi ah, yow la ñu am confiance bàyyi laag li nga xam ne mooy. gestion wu armeel yi defar nañ fi dem benn poste boo xam ne aussi c' est un poste des gardiens mu kaay moom la sec poste bi ci boppam à l' amu fi woon poste bi à l' amu fi woon fii ñun ñoo ko créé pour euh, abri gardien bi mooy abri góor gi Demba Mbodj ñun ñoo ko créé avec l' appui de El Hadj et de ses équipes ak njëmbalu. Eh, waa quartier bi donc kii Pape Malick Diop la tudd doom Boubacar Diop Bouba Jaxaaw moom mi dafa bokk ci équipe bi moom it dafay koo xam ne c'est un fervent moom it dafay koo xam ni même bi bàyyam tëddulee ci suuf saa yu fi dara xewee day ñëw dugal ci loxoom mu ngay dugal loxoom ci jumaa ji mu ngay dugal loxoom ci armeel yi donc Pape Malick ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla yokk fanam yàlla yokk wërëm. yàlla yokk ko teranga yàlla bàyyi ko njabootam ci barke Rasulullaay kii mooy secrétaire général bi kii mu ngi tudd Madou Ndiaye Madou Ndiaye bi ñu nommee bi ñu ma président ba noppi du comité de gestion du quartier dañ ne kan moo leen doy man leen man de man Madou Ndiaye moo ma doy Madou Ndiaye moo ma pour ñu nommer ko le secrétaire général du comité de gestion du quartier ba ma ka ne Madou Ndiaye moom moom doy ba tey ba tey ah guddeeg bëccëg mu ngi ci liggéeyu armeel yi guddeeg bëccëg loxoom mu ngi ci quartier bi guddeeg bëccëg ndimbalam mi ngi ci quartier bi ku mel ni Paul Sow mi ngi nii Paul Sow kaay secrétaire général sànni benn waaw donc comme ñu tey fii euh, dimanche le 29 septembre ci Samaris Jaxaw euh, Thial yi tey dañoo ñëwoon fii tey pour def première désherbage parce que euh, dañoo gis ni armeel yi boo ñax yi dafa jub ba ci kaw tey soo doon denc sax sa sa néew da am problème tey ñu bëri sax dañuy am hésité pour dugg ci biir suñu indee seen néew ci bunt bi la ñuy yam bàyyi ñoo nga xam ne ñoo yor seen néew ñu dugg ci biir loolu moo doon problème bi moo tax tey ak comité bi le président ak euh, imam yi ak charge yi vraiment ñu dajaloo ak population jaxaw caali ñu ne dañuy ñëw dindi le premier désherbage pour en premier temps ñu bàyyi ba nawet bi jàllaat ñu doo ko defaat deuxième kii waaw di remercier population bi yëpp parce que ñun ñëpp ñëw nañu à huit heures ils sont le cadre de vie donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi bon ensemble daal mi ngi dem waaw ñi ci woon ak jeunesse bi ñu bàyyi toog ci bopp ko ñi naan du ñu ñëw ci armères yi parce que dajeeg nañoo ak yenn jeunes yoo xam ni vraiment ils sont inconscients te loolu nag war nañ ci sensibiliser jeunes yi pour que ñu am xel ne armères yi fi mooy kër gu mujj gi waaw jërë ngeen def. waaw waaw kontaan nañu lool. la ñu doon rêvé yëpp mi ngi nii doon na koo xam ni eh, mën naa ni keroog ba mu nee nañ ma wutal registre keroog ba mu nee nañ ma wutal registre pour l' enrichissement des décès. nee na affaire carnet registre yooyu dafa xew yi dafa xew yi man ko lu xew mun ma du def lu dul yëkkati ordinateur bu bees tax takk sa loxo man ko kon de colonel def loo xam ni c'est un rêve démb ay buret buret yi fi nekk yëpp ñu koy liggéey moo ko jël indi peel yeeg rato yeeg yëpp colonel Dany Boye moo ko jël indi lii dañoo bëgg gouverneur ci boppam xam ni le colonel Dany Boye mu ngi jàppale Thiès dañu bugg le maire Babacar Diop. xam ne colonel Danibo mu ngi jàppale cees dañoo bëgg maire zone nord ak maire est ak ouest yëpp ñu xam ni colonel Danibo mu ngi def yu bari yoo xam ne ñaari ñett duñ ko dégg ndax du wax waaye ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yore nànk yenn yenn secteurs yi lu mel ni man ñu nànk affaire armel yi ak jaxaw suuf di délégué bi man maa mën a wax loolu ci moom dafay def social dafay dimbali ñoo xam ne dañoo feebar dañuy dimbali ñoo xam ne dañoo toog nekk ci diggante toll ci diggante am ay jafe-jafe le colonel Dany Mbodj da leen dimbali donc colonel kaddu gaa ngoog sa loxo. xanaa di sant di gërëm rek te xam ni fii ñuy nekk moom kër ñëpp la ñëpp ko bokk li fi waay def rek mën nañ ne boppam la ko defal loolu moo tax nag xanaa dañ ko siiwal ren rek wante mosuma bàyyi loolu chaque année vraiment dama cee nekk ñëw fii indi di matériel jàpp ci te comme ni ko commissaire waxee même si lii paasee sax. ndax comme léegi dafa am benn comité de gestion boo xam day gérer cimetière yi léegi dootul rek bésu kii ko la nettoiement mais dañ koy topp di ko entretenir di ko defar moo tax mu wax loolu léegi ne bi nga bëggee dem certificat d'inhumation yi suy ñëw ni nga koy jëlee man leen loolu un ordinateur ngeen jël di ko ci def comme ça ku ñëw te amul certificat d'inhumation kenn du ko fi suul mu am ordre. loolu moo taxoon ordre boobu nag vraiment ci laa nekk di ànd ak ñoom tam dénti bunge joxoon leen euh, euh, ma noonu qu'un ordinateur ñu ciy def loolu ba pare nag chaque fois su ñu bëggee liggéey rek ñu jël matériel jox leen d'entretien et tout vraiment nekk seen ginnaaw daal parce que léegi comme ni ma ko waxee rek dootul béy rek mais léegi entretien la ak nettoyage entretien nettoyage daal du jeex at mi yëpp la wax naa ne fu leen soxla dara daal jëm ci loolu rek incha ngeen ñëw dinañ leen ci jàppale la bu soobee yàlla waaw merci il paraît que da nga matériel boo xam ba caag ñu xalaat la bañ la xalaatee la ñu jékki-jékki rek daal di nga gaare oto wàcc matériel boo xam ne mën naa ne moom la ñuy liggéey fi mu nekk nii loolu nu mu demee. waaw waaw xam nga li ma ci wax rek ne ki laa mos a nekk mais na xam nga rek chaque fois da ngay dolli waaw parce que vraiment ñax bi day gën a bëri ne ku gis affaire bi nu mu demee nii sax xam ne ko béy béyaat ko te tamit euh, vraiment dañ soxla ku du matériel matériel bi sax ëpp na lii. lii dafa nekk benn premier lot bu ñu indi rek mais dinañ indiwaat beneen matériel parce que soxla nañu peinture soxla nañu yëgalaat mur yi soxla nañu ay liggéey yu bëri yoo xam ne daf ci am di liggéey yu béy armeel rek voilà liggéey yoo xam dañ ko war a taxaw yëpp vraiment pour entretenir waaw vraiment pendant toute l'année dañ ko taxawaat yokk matériel boobu beneen matériel boo xam ne dinañ ko soxla jëm ci ay peinture ak ciment ak yokkaat mur ak yooyu yëpp incha allah fu ñu ko yem rek suñ ma ko yëgalee incha allah dinaa ko sama loxo bu baax a baax waaw colonel jërëjëf lii doon kàddu goo xam ni képp ku seetaan YouTube RTT ah defe naa ni di nga gis lii nga xam ni moom nga fi wax ak li nga xam ni moom ngay def ci jaxaaw ak di ko def ci armeel yi waaw Paul Sow Paul Sow di agent municipal dans la commune nord di koo xam ne aussi euh, il fait partie euh, il fait partie des Thiessois qui sont particulièrement des renommées dans le cadre du sport, dans beaucoup de cadres d'activités socio-éducatives, dans le cadre culturel et pas mal d'activités ak di dimbali ñu bare bari bari ci quartier bi ci wàllu ñi nga xam ne amuñu këyit ñi nga xam ni seeni doom amuñu këyit mënuñoo dugg école Pay Sow dafay taxaw toute une journée ci audience foraine yi di leen rangal ak di leen taxaw ba xale mën a nekk à jour dans le cadre d'identification euh, des extraits de naissance Pay Sow kàddu gi yaa ko yore jërëjëf Ablaye ñu ngi sant yàlla di sant julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte rek dellu soit fii ci armée yi nga xam ni yéen a ko yore euh, comité de veille yéen ñi yor comité de veille bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen euh, gërëm di leen sant ndax liggéey bi ngeen def liggéey bu rafet la léegi armée ñuy bàyyi armée yi nag sacerdoce la ci ñun quoi loo xam ne la suñu bopp lañ koy defal ku ci nekk am nga fi sa place suñuy maam suñuy papa suñuy yaay ñëpp a ngi ci biir armeel yi donc ñun suñu warugar mooy ñu ñëw fii fekke si euh, encouragé xale yi fekke si fi bay li li nga mën a bay nga bay ko loo mun comme ay mag lañu ñu encouragé xale yi rek ñu buñ ñu gisee ñëpp dañuy dañuy am mbégte am saw cawarte ñëw ci armeel yi pour bay ko donc euh, loolu daal moom lañ moom lañ doon gërëme leen ko sante leen ko quoi wax ni le comité de veille fait un bon travail donc euh, armée yi armée lu jaxaaw la caali ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu fi waay def nag defaloo ko Abdoulaye Fall defaloo ko Médoune defaloo ko dani dani booy sa bopp nga koy defal parce que ku nekk am nga fi sa place ëllëg parce que ñun ñëpp ku nekk nga war a defal sa place donc armée yi daal loolu lañ koy doon di gërëm waa jaxaaw yëpp gis nañ participation bi nit ñi ñëw nañu nit ñi ñëw nañu nit ñi xale yaa ngi participer donc c'est une bonne chose di daal di ko répéter comme ni ngeen ko waxee yéen chaque six mois ngeen ñëw. chaque si mois ngeen ñëw ñu ñu ñu nettoyer armeel yi comme ni ko dani booy waxee léegi yëkkati miir yi pour que benn beneen kii du fi am donc donc loolu daal Ablaye ñu leen ci sant di leen gërëm di di leen jox seen wàccuwaay ci liggéey bi liggéey bu rafet bi ngeen di def euh, jërëjëf aussi la télévision bi fi ñëw RTT bi fi ñëw euh, euh, Seck suma xarit la moom c'est mon ami c'est mon semon c'est mon tout on toujours ensemble donc ñu ngi leen sant leen gërëm ñoom ñu ñëw pour pexe euh, ba lii am nit ñi gis ko jël ci exemple pour pour toute la ville de Thiès. et merci beaucoup. ngeen nekk ci su indee su su indee di ngeen ci nekk su indiwul di ngeen ci nekk. mais xam ni moom la waroon moo tax ñu ne indi njàmp dalam ngeen xam ne lii ngeen def gërëm na leen si sant na leen si parce que moom ngeen ko war a defal donc bi muy ñëw nag gis nga toute cette délégation là monsieur le maire euh, adjoint au maire monsieur Dembal moom xam ngeen ko fii dëkk Daxaaw nga bokk euh, monsieur le maire donc premier adjoint euh, madame Diop moo ngi nii si ginnaaw Thioro El Mansour Dia gis naa fi sànq Ndiaye Mbengue moo ngi sama ginnaaw du conseil mm. nekk foofu si maire bi délégué même personnel bi moo ngi nii voilà colonel donc euh, Dani colonel Dani waaw dama ko dafa nekk sama ginnaaw donc moo ngi nii moom aussi également sama ginnaaw. Euh, Mouhamed Thiam. Hachem Thiali moom tamit di conseil si maire moo ngi nii. xam nañ ko waaw boole si aussi ak ay mbokki boppam yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk entre Thiali ak Jaxaaw mu ànd ak ñoom ñëw si ñëw ñëw si liggéey bi nii fekk si leen mais encore une fois di leen si di leen gërëmte te di leen masoo coono bu baax a baax a baax xam naa ñu def ko kàddu waaw waaw waaw comme ni mu demee nii. mon agent municipal la à la retraite, mais rappelé à la perception municipale au service des impôts fonciers. Donc, monsieur le maire, soyez les bienvenus. Puis, dans le verre nous à 6h de ñu ngi nous Délégué par le délégué de quartier Elage Gourmand qui, kii euh, le responsable des point focaux, mooy sunu le président, monsieur Boy. di koo xam ni ñun ñëpp dañoo nangoo topp ci am ndax melokaanam Jacques Gaye c'est le secrétaire du secrétaire du délégué de quartier monsieur Jacques Gaye xam naa ne lu mu yàgg yàgg di ko xam dembale dina la indi ba ci moom ou bien le colonel booy indi la ba ci moom ñun fii biñ fi ñëwee euh, kii mooy suñu quatrième année quatrième édition édition boobu ñu tudd ko le colonel Birame Dieng qui était constamment ici le colonel Birame Dieng heure bi daan na ko fekk mu gaari fi otom wàcc fi ay rato wàcc fi lu ne geste yi moom la colonel booy mu di def geste yu mel noonu la colonel Birame Dieng daan def moo tax ren jii nag émission manqué doon koo xam ne surtout doon camarade moo tax ñu tudd ko édition bi ak di ko ñaanal donc euh, dembale bi doon na koo xam ne ku jar a bàyyi ci koñ la ku jar a ci quartier bi la man agent municipal la depuis 88 je suis dans le mairie mën naa ni doon na koo xam ne c'est un élément fervent te ñun gëm nañ ko li tax ñu gëm ko liggéeykat la ci it waxkatu dëgg la moo tax ñun ñu bëgg ko on lui jette pas de fleur parce que doom la ñoo ko mag fuuf mënuñoo may loo xam ne amuñu ko waaye melokaanam rek lañ lay wax melokaanam rek lañ lay wax donc lii nga xam ne moom la ñuy recevoir tey jii doon loo xam ne ñun suñu ba <laughs> kii de ku ko fàtte musibaam kii ko fàtte musibaam waaw jërëjëf waaw donc lii nga xam ne moom lañ jot tey jii dañ koo soxla benn euh, ndox mi soxla nañ ko parce que déjà yaa presque quatre cent à cinq cent personnes à l'intérieur te yaakaar naa ne fu ñàkk gën rek euh, wax dëgg yàlla il faut de l'alimentation en eau pot de peinture yi après ces opérations là di nga gis ñoo xam ne ñëpp dañuy dem waaye ñooy wëlbatiku dugaat ci biir armeel yi di xoos armeel yi ak di peinture bàmmeel yi nga xam ni quand même leen a tabax ba noppi donc soo yi dafa mel ni or ci ñun c' est comme de l'or pour nous mais ci ay brosse ay pinceau suñ ñu mënee dimbali aussi ci camion suuf parce que am na bàmmeel yoo xam dafa suleeku am na bàmmeel yoo xam dafa suleeku camion suuf suñ ko na am fii ah te ko ci loxo imam Mbaye bi yaakaar naa ni il va nous rappeler ñun ñëpp comme aujourd'hui ñu ñëw topp bàmmeel yi encore di ko suulaat am na ñoo xam dañ leen denc seen denc yàggul am na ñoo xam dañ leen denc seen denc yàggul ba nga xam ne su toogee tuuti rek bàmmeel yi dafay res su resee nag day def ay ouverture yoo xam ni ay lu nekk mu nekk caa dugg léegi nag travaux yi dafa des ci armeel yi monsieur le maire mooy maanaam mur yi nga gis nii ñun ñoo ko fi teg fii c'est le poste de garde mais en même temps képp koo xam ne indiwu fii loolu ñu naan permis d'inhumer te permis d'inhumer yooyu la ca ëpp lépp la quatre pour cent dembali mi moo ko def balaa mu koo def def ko ci lu leer a leer a leer soit su fekkee accident dafay am dafay jot constat gendarmerie mbaa mbaamu jot constat tribunal visé par le procureur de la république ou bien muy ku feebar dembale xool xam ni lii doon na loo xam ni lu jara denc ci armée yi la donc kii mooy sunu état civil mooy sunu lépp donc monsieur le maire tey ji bëgg nañ sa taxawaay. Euh, ndax lii ñuy def kenn ku nekk sa bopp nga koy defal lu fi waaye sonn rek sa bopp nga koy defal kon luñ la ci gërëm ak luñ la ci waxit maanaam dañ lay soññ rek di la gën a encouragé mais fii lu fi waaye def rek man a amila saalihan fa li nas euh, yàlla nee na lu waay def sa bopp nga ko def ndax balu teng si la rek waaw fii nag di place boo xamante ni maanaam mooy résidence yu vraie résidence waaw ndax ñii xëccewuñu suuf waaw ñii xoloowuñu kon fii mooy dëkkuwaay bi gën a bi gën a wér ci dëkkuwaay fii mooy parcelle bi nga moom dëgg dëgg dëgg dëgg boo xam doo ko xëccoo kenn kon nag loolu kii suñ ko dee defar vraiment ñu gis ni ñëpp mobilisé nawuñu xale mag ndaw autorité ñëpp mobilisé xam ni ñoo ko bokk nga si ni kenn xoolul parti ba nga bokk kenn xoolul xeet ba nga bokk kenn xoolul tarixa ba nga bokk waaye ñun ñëpp ñu yëg ni ñoo ko bokk ñu ñëw mobilisé wu loolu vraiment loolu dafa sedd xol euh, di gërëm ñi nga xam ni yëpp ñoo ko ñooy initiateurs yi euh, damay wax ni nii nag dañ ciy jàngat leen man dama ci jàngat leen mooy soo buggee lu baax bul gestu demal rek nit dina la ñu fekk ndax damay rappelé ba ma ko jëkkee bëgg bëgg def su ñi ma doon ñi ma ci doon xalaat li ma jëkk wax ndax teelul ndax nangam mais bi ma demee ñëpp dañ ma cee fekk donc nit moom saa yoo defee dina la critiquer mais su fekkee yow la def na baax yi baax na rek demal mhm. parce que dañ ni am na ñoo xam ni lu sotti la xam xamuñu lu lu sotteegul boo demee ba mu sotti nag boo leen kii ne ah ndekete lii la woon kon vraiment loolu man ma jàngat naa ko ci biir nii ku bëgg lu baax rek demal avancé waaw su sa yéene sellee nga xam li ngay bëgg def avancé rek bu la ci yàlla fekkee ñi baax ñëpp ne la ci fekk kon vraiment gis naa ni bonne volonté yëpp ñu ngi ci participer vraiment ñuy gërëm ah euh, maanaam c'est délégué de quartier bi ak personnel ñi nga xam ñoo koy dimbili seen taxawaay ci mbir mi ndax mag mag naa ba ci réew ndax li gërëm xale yi nag ci déggal gi ñu déggal mag ñi ndax xale ci dégg ndigal ci lay amee maanaam réussite mais xale bu déggul ndigal na ko wóor ni du ye foo mu jëm dafa yegg waaye gis nañ ne xale yi jeunes yi am na dégg nañ ndigal topp nañ ci ginnaaw mag ñi wax dëgg yàlla dinañ respecté conseil mag ñi loolu ñu koy saluer bu baax détermination boobu si xale yi baay Fall yi tey ji dafa naa dañu am kii mais ñoom it ñu am solo lañ ci liggéey bi léegi nag monsieur le maire vraiment acte bi ñu koy rafetlu disponibilité bi. surtout nag parce que dama ni man autorité bu accessible loolu moom vraiment man su amee rek. am naa yaakaar parce que kooku wan na autorité bu accessible rek wan na ni moom xeet askan wi ko fa bàyyi. ndax li ñuy miin mooy suñu la xasee fal rek maanaam nga doon beneen doomu aadama mais yow gis nañ ni vraiment euh, ku accessible nga ku sensible nga ci ci ci vraiment soxla askan wi yàlla na yàlla jàppale defal ndam. loolu nag équipe bi nga fi fekk wax dëgg yàlla dina dal seen wax parce que ñoom loolu lañ fi nekkee woon waaw ñoom euh, euh, euh, monsieur dembale mi moom toujours daf koy ànd ak ñun du début à la fin. waaw tey jii dafay ñëw daal ni ma présenté woo maire de max man ci koñ bi laa dëkk te dama fee a ñëw comme ta comme kii donc loolu rek aussi vraiment lu am solo la vraiment colonel ñu ngi lay sant sa taxawaay wax dëgg yàlla loolu lu am njëriñ la yow ah militaire rek moom kenn du ko jàngal am njëriñ. ndax moom ci loolu lañ ko yar ci loolu lañ ko formé maanaam di jox kaw xam ne attan ngaa joxe sa bakkan sax pour nit ñu sauver kon kooku wax dëgg yàlla kooku njëriñ foofu la mën a yem waaw wax dëgg yàlla ñu lay sant yàlla yàlla yàggal sa tëy yàgg euh, di sariñ sa di gërëm monsieur le maire sa staff bi nga xam ne ñoom nga àndal lii nga defit aussi wax dëgg yàlla euh, euh, maanaam duñu ko xeeb parce que looy def ci yàlla kenn du ko xeeb mm-hmm. yàlla loo ci def kenn du ko yéem kenn du ko xeeb moo te lii lu am njariñ la parce que suñu paree dafa am xale yu ñëw di defaraat di peinturaat kii bokk li vraiment ñooy ci sant sànq rek laa ko woo wax ko ni dafa am bàmmeel yu xaw a rës waaw waaw bu ñu amoon camion suuf mu ne mooy ah dimanche di de moo ma jaaxal waaye bu dee suba lay mën naa leen koy lijjanti la xam nga loolu aussi vraiment loolu njariñ la yàlla yàlla yàggal sag bi te yàlla dooleel leen wax dëgg yàlla loolu euh, la ñuy ya la ñuy xaar ci yéen mm-hmm. maire maanaam li xaw ma ku ko tuddee maire. mais jox na turum mooy koo xam ne maanaam yaay ku ne xam ne ni moom day am yërmande ci ci njabootam. kon suñ ko tuddee ñu gis ni maire bi ko am yërmande la ci njaboot bi yàlla yàlla jàppale leen yàlla yàlla doole leen yàlla yàlla taxawu leen ba li ngeen bëgg a def yàlla yàlla def ci taw xeer ba mu mën a yegg kon bu ko defee rek ah, asalaamaaleykum ah, mbooloo mi ngeen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam wax ji nag moom matal na ba pare imaam wax na li ñu waroon wax yëpp dafa fekk nag délégué daf ñu yóbbante woon ay kàddu kàddu yu gàtt ay kàddu ngërëm ngërëm li mu ngi ko jëmale ci population bi ci xale yi seen njàmbaar ci armeel yi ci taxawaay bi ñu ci am ak liggéey bi ñu ci am ci mag ñi ci seen taxawaay ku nekk ni ñëw nga ba mu ñu nga mbaa nga jox sa alal mbaa nga jox sa matériel bi ngërëm tamit monsieur le maire li tax mu koy gërëm nee na matériel bi mun naa dem ba këram góor mag Ndiaye bàyyi ko fa yabal dembale bu see yemoon tamit du ko meree bu see yemoon du ko meree mais euh, xëy na euh, musul am de ne du ne musul am de mais mu xële le maire ci boppam ñëw yabale woon ñëw joxam taxaw nee na euh, c'est une première pour moom. ànd ak saf yëpp nee na loolu moom wax defal moom yëg na ko lool parce que dembale mi suñu doom la te ci moo topp ci yow moo ko ci nii fi lañ dëkk boo leen yabaloon tamit du la mere. mais nga bàyyi say soxla ak ni mu xate nga ñëw si lii nga xam ne moom lañ foog te moom lañ am nga taxaw nga taxaw sa équipe bi yëpp nee na euh, euh, li mu la ñaanal sa yoo xamuloo ko mais duñ ko xam te duñ ko it bu soobee yàlla loolu naa ko wax gërëm njaboot bi fi nekk ku fi fii moom nga fi ñëwal parce que la ñu doon quartier bi gërëm xale yi di ñaanal gën a jàmbaare maa ñi fi nekkoon ci kañ bi yëpp ku nekk sa sa taxawaay wax ci nag lu bare loolu la waxoon nañ ko wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp bisimilah rahmaani rahim wasalaam Euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar yëpp euh, dafa fekk rek Sénégal lañoo baaxoo donc di jokkalante ay kàddu yu rafet mais tey su ma ko mënoon a dindi teg ko fële dama koy def donc dem ci jaamu yàlla fii parce que lii comme ni ko imaam waxee sànq rek ku fi ñëw sa bopp nga fi ñëwal ku fi def rek sa bopp nga fiy defal te yàlla xam na ni ne bi may ñëw intention bi c'était pour ñëw barkeelu daal di jël ci yiw bi mais euh, kàddu yi mën nañ ko nangu. Euh, donc jokk jokkalante ay kàddu yu rafet parce que yéen ñëpp suñuy kilifa ngeen donc ñoo ngeen leen di sant di leen gërëm imaam yow amuñu sa fay xam nañ donc fi nga toll ci ñun ak fi nga toll ci mairie bi délégué ak tous les responsables mais ma leen di seedeel rek ne leen ñun de waa mairie surtout man la maire ak tout le conseil municipal donc jéppiwuñu suñu conseil municipaux yu nekk fii waa jaxaw maa ngi leen di seedeel di seedeel jaxaw gépp ne ay jàmbaar lañ bépp représentant boo xam ne am nañ ko foofu à la mairie ñoo ngi taxaw ni ñu war a taxawee def benn bloc ci seen ginnaaw mag monsieur le maire Babacar démbale ñun jaxaw bu fi dara xewee suñu xel dafay dal ñun fois que ñu jot la correspondance rek dañuy leer ni donc taxawaay ba ca maire bi war a taxaw euh, nañ ci taxaw parce que ni ngeen leen yara la ni ñu ni ñu juddoo la ci jaxaw je les encourage et je félicite loolu moom maa ngi koy seedeel jaxaaw gépp def nañ benn bloc ànd nañ ak détermination ànd ànd nañ ak engagement te bëgg nañ donc maire bi avancé loolu moom ma leen koy seedal yéen waa Jaxaw gépp bu devez être fier donc de vos fils de vos dignes représentants qui sont au niveau donc di conseil municipal ñoom ñëpp muy góor di jigéen su ma leen doon lim du ma fu jugee mais yaakaar su ma ci tuddee le maire Babacar Dembélé ak Coro El Mansour Dia mii mu représenté jigéen ñi le colonel donc di suñu doyen di suñu lépp di suñu conseiller macha allah donc rëcc wuñu lu ñu doon ñëwee donc ca ca mairie ba donc rafetlu nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax lii nag ma fa ma waxaat ko rek jaamu yàlla la rek ñëpp xam nañu donc c'est de notre compétence pour que donc ñu entretenir les cimetières ak lépp lu ci war ci wàllu donc toppatoo ñun la war tey bu ñu amee donc ñu ñu ko defal te tout à fait normal ñu ñëw donc jàppale leen ci également donc ñaanal leen ci ngeen yàgg ko def te bépp képp koo xam ne rek sippi na tànkam teg ko fii tey moo xam nga joxe ndox moo xam nga for garab moo xam donc nga nga dagg xob loolu yàlla na la ko yàlla fay yiw donc ful ko lu bëree baree bari ba maa ngi gis sa bopp bu baax a baax a baax kàddu yi daal warta mën a gudd parce que boo dee ñëw donc di jaamu yàlla daal je pense que jarul kii yu bëri mais ma répété ko kontaan nañ ci waa Jaxaaw kontaan nañ ci conseil municipaux yi nekk Jaxaaw donc yàlla na leen yàlla fay lépp loo xam ne jëf nañ ko ñoom jëm jëmale ko ci seen askan rek yàlla na leen ko yàlla fay donc salaamaaleykum rahmatullah ndax kon yàlla yàlla dimbali kenn ku ci nekk li nga fi def yàlla gis na ko yàlla ko yàlla faj barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fatiha ñetti alam nasha ak salaatu ala nabi yàlla yàlla faj aj yëpp amin mooy Aïcha dund boo xam ne ñu ko lekk si wàllu yàlla woo xamante ni soxla soo am mañ koo faj ci sutura kenn du la xamal dara yàlla ko yàlla defal wa amalan jëf ju yiw ji yàlla nangu joo xam ne bis boo taseeg moom mën a siggi yàlla ko yàlla li ñuy jëkk a sant nag suñu borom bi subhanahu wa taala ñu naaloon lii yàlla may ñu wéeru ba ñu ñëw teewe ko yàlla ñu ko yàgg a teewe te yàlla yàggal yokk yokk man-man yi yokk kàttan yi te nangul ñu ko nag te yàlla dimbali ba bu ci gis suñu bopp waaye li ñu gën a bégloo ci jataay bi mooy dévouement bi nga xam ni ak détermination ak dépassement bi ñu gis ci maanaam askanu jaxaw wax dëgg yàlla soo fii ku fi ñëwoon ci suba nga xool ñax mi ni mu meloon ah. di nga ni kii une semaine sax mënu ko fi jëlee. waaye tey yi heure bii tey midi sax nga xool armée yi tey ñi gis ni set na wicc di nga xam ni askanu jaxaw daal ñii yàlla yàlla dimbali leen dogu nañu nga xam ni góor mag jigéen ndaw euh, parti yëpp fi daje maanaam askan yëpp fi daje autorité yëpp fi daje lii wax dëgg yàlla moo tax yàlla defal ñu taraange gi ay nit nag bu ñu àndee fokk yàlla dugal ci loxoom yàlla ànd boobu nag yàlla bu ci seetaan am yooyu ñuy gërëm la yow Seck. Eh, bu baax nga te liggéey bi ngay def nii liggéey yonent la de ndax yonent bi di tasaare bu baax mooy liggéey bu yonent yow yaa ngi fas yéene di eh, bashiran wa nadiran di tasaare lu baax yàlla yàlla fay la te it professionnalité bi ñu ci def it vraiment gis nañ ko vraiment ñu la naw nañ la ci loolu bu baax a baax waaye commissaire vraiment. ñu ngi lay sant yow ci sa taxawaay ci sa dévouement ci sa détermination wax dëgg yàlla euh, bi bi nga ma ci fekk see yëg naa ni oyof na ci man tooy yàlla yàlla fay te oyofal say mbir ndax wax dëgg yàlla saa yu man li ma gën a neex ci moom mooy loyauté commissaire du yëkkati dara te waxu la ne ah damaa bëgg a def nangam loolu wax dëgg yàlla day day yëw na liggéey loolu yàlla na si yàlla jàppale yàlla gën la taxawu gën yàlla ci sagal waaye it wax dëgg yàlla soxna si dañ maa wax ci lu muy def mu muy soxna Soumaré mii dañ ma wax ni day faral di indi ay ay ñam soxna nday Saw day faral di dem di indi ay ñam di fekk ñii liggéey mu leen ko jox wax dëgg yàlla lool nag wax dëgg yàlla war nañ koo saluer moo tax ma ne woon sekk fexeel ba ma xam ko parce que kii nit ñi jàppale ci liggéey bi yàlla ko yàlla jàppale waaye nag gis na bokk na ci tuyaaba yi gën a rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ko laaj ne ko li ginnaaw farata li ñuy defal yàlla lan moo ci gën mu ni ñeent yi day moo gën ginnaaw farata lu ñu mën a defal yàlla te di ci wut tuyaaba mu leen fekk ku xiif nga jox ko mu lekk kon yow xamoo sax li def bokk na ci yi gën a rëy ci li ñuy defal yàlla fekk ku xiif nga jox mu lekk. yal na yàlla fay yooyu loo def ren yal na ko gën a man te yal yàlla sutura yàlla bu si yàlla seetaan ndax seetaanoo jaam yi beneen bi ci mu nii fekk ko am bor di gor xamul fu muy jaar ba fay ko nga fexe ba fayal ko ko maa nga jégal ko bor ba nee fekk ko jaaxle nga fexe ba teggal ko jaaxle ba fekk ko triste nga fexe ko dindil ko trisam tristesam bopp nee na yii mooy liggéey yi gën a yi ñuy mën a defal borom bi subhaanahu wa taala kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant soxna si yàlla yàlla taxaw la yàlla defal yëpp ah, ah, El Hadj nag yow wax dëgg yàlla yow moom eh, disponibilité ah efficacité ah utilité loolu nga nekk ci koñ bi yàlla yàlla dimbali la jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ñun moom wax dëgg yàlla li ma wax imaam bi ma nee maire ma ne ko noonoo tey ñëwuma sax ci cadre maire yi parce que man ci koñ bi laa dëkk di doomu gox bi yàgg fee ñëw sama baay ak sama bay jur yëpp nekk fii kon loolu moom ci côté boobu laay ñëwee mais bu dee maire dina ñëw ak délégation ak li mu war a taxawe moo tax bu mu ñëwee tamit fii xëy na ci fànn boobu laay gën a taxawee donte nag bu ñëwee dinaa ko accompagner. ci cadre maire yi nga xam ne liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk muy liggéey bu am solo euh, su ko defee ñun kàddu cant rek ci taxawaay yëpp nag wax dëgg yàlla nit ñi bonne volonté moom bi mu ñëwee sax loolu la ma njëkk a wax bi mu ñëwee dafa ne wax dëgg yàlla waa jaxaaw jàmbaar lañu ndax lii nga xam ne tey niñ moom lañ taxawee boo xoolee loolu mairie la war euh, compétence bi ci mairie la nekk mairie moo war a wut ku fi nekk mairie moo war a toppatoo bërëb bi lépp lu ci war mairie compétence bi moom moo ko yore daf ko a toppatoo mu ba ñoom organiser seen bopp ba mën a taxawal lu mel nii ba wuutu fi mairie bi ba liggéey bi rafetee nii ay ati at kon loolu amul lu dul cant ak gërëm loolu moom daf daf ko frappé mu ne wax dëgg yàlla waa jaxaaw ni mu leen fekkee ñu organiser bu ñëpp defoon nii dana ko yombal moom liggéeyam donte nag xam na ni lépp moom la war loolu nag kon cant googu rek la ñuy def mooy loolu fekk nañ ci avant moom muy ñëw. avant keneen di ñëw sax fekk na waa jaaxal ñoom xaaruñu dañoo organiser wu seen bopp di liggéey seen liggéey ku leen ci fekk fekk leen ci kon loolu cant la goo xam ne dañu koy jëmale ci ñëpp nag euh, rawatina nag imaam mu ngay wax rek imaam moom euh, au delà ki nga ko tudde léegi jàmbaar ma ne jàmbaar day tuuti ndax jàmbaar xëy na ci benn côté rek la mais kii dafa nekk icône boo xam ne ci façon fànn boo jël rek mën na nekk repère. route nag ñun ndaw ñi te kii koo gis do xam ne du boobu mag. kon am na loo xam ne tey ñun ñuy ndaw ñëpp war nañu mën a jël ci moom exemple ci façon taxawaayam gis-gisam ouverture am ak li muy teg muy développement loo xam ne lépp ci njaboot gi la jëm ak lépp loo xam ne ci lu njëriñ askan wi la jëm loolu nag moom dañ ko ci sant di ko gërëm tax tey ku fiy ndaw mën ngaa jël ci moom exemple toujours yàgg na nag yàgg naa ko wax yàgg naa ko ci moom ci di ko repérer booba sax moom ñëwagul fii pour nekk imam booba sax ma nga nekk di jàng daan naa joxe moom toujours exemple loolu nag bi mu jógee ñëw toog fii itam loolu dafa gën a firndewu rek loolu nag mën nañu wax ne lii fi am yëpp li ci ëpp taxawaayam ak doxam ak yëngatoom moo ko suñu mbokk yii nga xam ni ñoom ay Baay Faal la ñu ñoom it jël seen volonté bopp ñoom it xaaruñ ci kenn ñooy dajale seen cotisation di ko def dégg ngeen liñ la wax ci soxna Ndey Saw macha allah beneen côté aussi Ablaye aussi ku sonn ci ci ci ci armée la ça il faut le parce que nit ñi tamit Euh, guddeeg bëccëg subaa ngoon ku ne mun ngi lay interpeller lu xew dana fexe naka la ñuy def ba lépp mu mun a baax ñëpp ah ñëpp ñëpp ñëpp su ko defee kon loolu suñu papa ji nag moom kenn waxaalew ko ku ne xam na ne am na ngant mais lii da ko def jaamu yàlla armeer ku ne xam na ne gere ko boo ko deful jaamu yàlla du sotti parce que à n'importe quelle heure mën lañ la mën lañ la mën lañ la mën lañ solliciter moom nag def ci disponible taxaw ci te bëggu ci dara wax dëgg yàlla du dara mu ngi nii. mook mook pambooñ ma la ñoo yem kon yooyu yëpp nag ay taxawaay la yoo xam ne ñun ñu dëkk ci koñ bi nag di ay ndaw dañoo war a gën a organiser wu gën a taxawaat bu ñu organiser woo taxaw mairie bii yaakaar naa ne bii fi nekk nii wax dëgg yàlla ci taxawaay yi ak xalaat yi ak tërën yi lépp lu ñu fi soxla yàlla mën na koo yombal su ko defee loolu rek lañu ci doon euh, indi di sant bu baax nag taxawaay. kon ndekati nit li ko bàyyi ci kaw suuf pour mu amal njariñ nit ñi li ñuy amal njariñ nit ñi loolu la ñuy fay li ñu fi jariñ suñu bopp fii la yem mais la ñuy fekk alaxira di ko tedde mooy li ñu doon jariñ nit ñi kon bala ñoo xam ki doon du ki ki dundam am njariñ mooy ki amoon njariñ fii bu ñu demee alaxira la ñu xamoon kan moo am njariñ waaw di nga gis waa joo xam da nga koy ñee fii ci àdduna ndax alal ju mu dajale ngeen dem fële moom mu lay ñee ndax yëg ni yooyu yow fee nga doon dajaleel loolu nag li la koy may mooy fexe ba amal njariñ doomu aadama yi yéen a wax dëgg yàlla gis nañ ne amal ngeen njariñ doomu aadama yal na yàlla fay leen yal na yàlla taxaw ci seen mbir ni ngeen di taxaw ci mbir doomu aadama yi vraiment bët nañ ci yéen trop yal na yàlla jàppale leen. waaw jërëjëf jërëjëf imam kii mooy vice président bi nga xam ni mën naa ne moo topp ci man lépp loo xam ni am naa ci empêchement wala mënu ma koo def moom laay woo teg ko ci loxoom imam d' accord ci ñun ñëpp ñu d' accord ci Ousseynou Seck. waaw commissaire ñoo ngi siyaar di siyaar imam Mbaye yéen boo waxee bari yéen suñu kilifa ñun amatul luñ ciy wax kaddu yëpp bàyyi nañ leen wax dëgg yàlla ñun ay xale lañ seen ginnaaw lañ topp liggéey rek ñu ñor ak jaamu yàlla kese waaye ñu ngi tënk kaddu yu baax a baax waaw de vie c'est des pionniers des donc c'est des lañu tey jii ils ont devant tout le monde devant le maire devant les autres autorités donc waa cadre de vie ñu ngi gërëm euh, seen coordonnateur waaw salaamaaleykum gars yi lii de moom nekk même bu dul sax au niveau de cadre de vie dafa nekk loo xam ne acte humanisme la boo xam ne nit ku nekk war nga ko xalaat ndax armée yi ku fi amul nijaay am nga fi rakk wala jarbaat wala mag wala koo xam ne xamoon nga ko mu tëdd fi même bu dul loolu sax ay jullit lañu te ay nit lañu te nit fu mu nekk yaakaar naa ñun ñëpp fii mooy suñu kër gu mujj buñ ko xamee buñ ko xamul kon ñëw bi di fi liggéey loolu dafay nekk loo xam ne dafay nekk mbégte si ñun ñun ñii ñëpp gis nga jigéen ñi ñu ngi nii ñoom ñëpp ñu ngi nii ñu ngi sant waa jaxaw nag si boole bi ñu boole si loolu di ci gërëm tamit monsieur le sous-préfet madame le sous-préfet madame Oumou Diamanka ak euh, sunu chef urbanisme muy monsieur Kabo ak euh, coordinateur régional monsieur Ndiaye ñoom ñi nga xam ñoo ñu yebal fii ñu ñu taxawee seen seen tànk merci. voilà